alors salaamaaleykum les chers internautes Tay ñuy ñëwaat benen numéro ci Sénégal rek Tay nak ñuy dalal benn artiste comédien bo xamanteni ni kenn dootu ko présenter te kenn boroom arrête de faire genre tay Dubai. Tay mom lañ seet si woon ñu bayé ko rek mu nuyo ak ñi ñi sétane. Paulis. waaw asalaamaaleykum nag ah, maa ngi nuyu àddina di nuyu Sénégal di nuyu ñi may sétane. Mhm. ku nekk ma leen nuyu sa tur sa sant ñi may bëgg ak ñi ma sopp maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax télé bi nag sama télé la mm-hmm. allo oui waaw soo tranquille si bu baax baax rek merci waay Eva merci waay Merci, ouais, merci, ouais. waaw maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp si trop si sant di nuyu ñëpp may seetaan bu baax a baax ak ñi ma sopp maa ngi nuyu ñëpp nag moom. maa ngi nuyu baax waaw. Euh, tout le temps nit yi dañuy dégg est-ce que mën nga ñu wax sa tur dëgg lan la. sama tur dëgg moom jarul moom ma ne sama tur dëgg moom jarul ko. sax jaru ko. mais jaru ko. boo woon nit xam sa tur dëgg lan la. bu nga xamee sa wàññi ma dara mais jaru ko en hmm. kon publish bi da nga bëgg muy continuer. Hmm. d' accord léegi dama gis que ni dafa am benn album boo nekk ci génnee. Hmm. album bu def douze titres. est ce que mën nañoo xam un peu si album boobu. Ah, mën nga ñu si wax tuuti. waaw génne album bu nekk euh, euh, benn morceau ci way ben morceau nga si way ban morceau la. non way arrêté faire genre yéen amul ay son. <laughs> arrêté de faire genre bi nga ñuy may. waaw d' accord mën xam au delà de comédie bi comédie bi ngay def. nit yi di la seetaan di ree di seen problème tout toujours est ce que am na leneen loo xamante ni Pawlish loolu lay séentu. séentu c' est à dire. c' est à dire objectif ba nga xamante ni à part comédie bi yow am na objectif yoo xamante ni bëgg nga ko atteindre waaw nit ki kay looy looy looy liggéey dañ ciy fekk nga séntu ci dara. Mhm. séntu naa ci dara moom. non waxuma si comédie bi à part comédie bi laa wax. lu may def. waaw. dara. dafoo dara comédie rek ngay def. arrête de faire genre wesh. yow yow à part liggéey bi lan ngay def. comment. à part sa liggéey lan ngay def. man. waaw man maa ngi jàng maa ngi liggéey. ay études de marché laay def. ok waaw maa ngi jàng aussi. man ay études de wax laay def. <laughs> yaa ngi koy def bu baax léegi man tout le temps dañuy gis que ni yàgg dix mille problème dañuy dégg que ni da ngeen a am ay problème da ngeen di xëccoo fii jàppal fii bàyyil fii te pourtant bu ngeen feeñee ci télé bi nit si duñu gis loolu dañuy gis que ni voilà lépp jàmm ça va est-ce que réellement yéen da ngeen am problème wala da ngeen ni def ay mise en scène tout simplement. yaa xam ne problème man. Hmm. diine problème xam nga lii problème man ak moom duñu ay nawle déjà nan moo tax du ngeen ay nawle bokkul ay yoon. Mm-hmm. waaw man du ma xuloo nit ki nekk télé di jubóog moom mu tane. Mm-hmm. xuloo mu amee xuloo la. Mm-hmm. man noonu laa man man noonu laa fonctionné sama man mënu ma tricher. waaw man mënu ma tricher. d' accord mais gisoo leen ni yéen ni ngeen di def ni euh, peut-être am na benn yoon boo xamante ni yéen a ko bokk parce que déjà tout le temps nit yi ñu ngi leen di gis comme liñ doon li kii doon wax sànq rek yéen ngi wax loo xamante yi sax peut-être est-ce que jotul ngeen boole tout ci objectif nekk ay porteurs de voix di nit yi xam nga problème yi de côté benn instant. man comment yeewu jàppal doo nit. mënoo yee kenn. Ah, pourtant si li ngay def peut-être mën nga si yee bari. non non non immature est-ce que maturité nekkul si biir dof na dof na may matière. est nit yi ñooy wax ni da dof rek mais yow mosoo dof. maa ànd seeg nit ñi dof. man xam naa dof moom bëgg la laaj ci fekk si. Hmm. kon Sénégal yi dañoo neex ndax. Hmm. dof la ñu bëggee dof laay léegi si si loolu aussi tout le dañu lay dégg ngay wax max max max max mooy waa car rapide. Hmm? d'accord est que mën nga ñu wax tuuti si loolu lan moo nekk seen objectif loolu. waaw car dafa nekk loo xam ne lu ndaw. liggéey boo xam ne nguur gi dañ koy war bàyyi xel. Mm-hmm. bu baax a baax parce que car rapide nekkul lu ndaw. Mm-hmm. parce que ku jël ay employé fu ne Ndar. Mm-hmm. Tivaouane Kër Massar. Fatick Nianing Touba Toul Bayaax. Guinée Bissau Gabon mu ko entreprise dina jox lekk dina jox naan ko nekkul ndaw. soo gisee ma leen delloo njukkal maa xam ne dañuy liggéey ñoom li ñuy liggéey am ci dara. max day liggéey rek ngir réew mi dox wul xale yi bañ a jaar géej gi nit ñi bañ a agressé. moo tax ubbi car di jël xale yi. Mhm. xale yi moom mi ngi lay jël. Mhm. jàppale la moo tax ma delloo njukkal car rapide mun mun mun ma leen way. mais mhm. mun naa leen kaasal pour si nguur gi bàyyi la xel te Macky Sall dina bàyyi euh, car rapide xel bu baax a baax car euh, moo nekk seule société buy dox. te jàppale xale amul benn xale ubbi société di jàppale xale. moom société kon moom lay def. xale lay jàppale.

yéen ma jàppee def oto ma oto ma reetal xam nga kii day teg day nekk suñu xel yi xam nga mosul nekk dof léegi nit ñooy nekk naan dof dof fekk yaa ngi liggéey sa liggéey yaa ngi ma seetoon nga xam ne dofu ma marqué xam naa ne dofoo ñi lay seetaan aussi xam nañ ne dofoo waa léegi yow ak Ouzin ndax juboo ngeen non mën ñoo juboo parce que rab ak nit <laughs> mooy rab bi. Ouzin rab la man nit ko ce que nekkul yow yaay tooñ Ouzin Pawlish. Hmm, man nan yi ko doon sànni nag. non damaa bëggoon bu génn rek parce que damaa xawoon sonal énervé damaa xawoon énervé. naka la la énervé. parce génn boo tëddee. Hmm. di gént àjjana kenn dëkk yow ngay gént ay njukub ay xar ay pomme de doom ay netatu ay kew. bisaab bu dof laay. léegi yow loolu Ouzin nga ko ji. ma xam ne kii kii nekkul ni ku baax. ma mhm. xam ne moom ma daal di koy. yow ban preuve nga am kenn Ouzin moo waxaloon nga doon gént loolu yëpp. xanaa xamoo lu Sénégalais di wax yëpp preuve la ci am sos na. Mm. te loolu nekk ci moom. yow mosoo gis preuve am nga des fois laaj ma laaj boo xam ne. Mm. amoo ko dégg dëgg la waaw. d' accord léegi Pawlish man laaj bu ma lay laaj boo xamante ni su ma sañoon vraiment nga tontu ma si tontu boo. xamante ni bu dee mën naa la ko tontu. waaw sûrement ding mo ko meuna tontu parce que question la comme question normale. Pawlish fi ak ay at ci kanam. est-ce que yow prévoir nga arrêter comédie bi ngay def nek ci leneen ñu sentu Pawlish génn feneen fo xamanteni bokul ak comédie bu mu nek di def actuellement. bu comédie bi doxee doo ko bàyyi comédie bu doxee doo ko bàyyi. kon est bi tegoo ben projet bo xamanteni c'est pour l'avenir. Mm-hmm. yaa ngi am nga xam Sénégal dañoo mën jël bu ñu la xewilee nooy def. ma ubbi taala di nga di nga alxuraan. non mais Cheikh euh, li ma wax mu amoon. ubbi daara. daara alxuraan di jàngale ni ñu jàngale gënu leen ku ma xewile xewil yàlla. ah su ma ubbee daara alxuraan di jàngale. Mm. ku ma xewile xewil yàlla daara alxuraan da ubbi. yow yaakaar nga ne soo ubbee daara tey jii ñi si dinañ indi seen doom yi ñëw fi di jàng. waaw yéen. am nga si yaakaar. baax baax. d'accord euh, léegi ban message ngay lancé euh, jeunes yi nga xamante ni actuellement ñi ngi si dëkk bi amuñu liggéey ñi ngi jéem a jël gaal yi comme ni ni ñu doon def fan yi nii ñi nga xamante ni ñi ngi def naka surtout noonu di sàcc ñii di agressé jeunes yi nga xamante ni tout le temps. dañoo désespéré daal actuellement ñi léegi li ñu gis ci dëkk bi ñëpp dañoo bëgg a siiw Pawlish ñëpp ñi ngi bëgg ñu gis leen ñëpp ñi ngi bëgg am buzz parce que loolu lañ gis ni mi ngi dox actuellement ban message nga am booy lancer jeunes yi. waaw ah, c'est que mm-hmm. siiw bu yàlla am dafa neex. Mm-hmm. ñi ngi bëgg a siiw te du doon mm-hmm. siiw. siiw nekkul da ngay siiw suñu borom mooy xool ko neex mu def ko. Mm-hmm. am na xam ne ñu mm-hmm. ah, na si mm-hmm. neex na neexul. lan moo si naqari. parce que amatoo droit taxaw ci mbedd saw <laughs> amut amatoo du car rapide te nit kese nga. waaw dëgg la ci mbedd mi. moo tax moo tax neexul. peut-être nit yi dañ lay séntu ba nga xamante ni àgg waaw te te te tëlaw tëla rek la. Mm-hmm. luy wane rek luy jaar rek la. Mm-hmm. waaw mais nit ñi Sénégal ko noonu mais nag yàlla baax na. yàlla nañu yàlla dooli sutura. Mm. Pawlish est-ce que prévoir nga takk jabar. moment bi. non non du moment bi. sa 14 gel yi ñaata si des. dafa mel ni ñëpp gaañu nañ. ñëpp. <laughs> auzu billaahi mina seytaani rajiim ñëpp. Pawlish ba amoo faru rab tamit xaw gelu rab. Amo gelo rab ya, be ah, ray gali. Yaay jublu dama fal rap. Gelo rab kay. Amo gelo rap. Xana mo gelo giwin yo. Hein? Xana mo man ba ba legi de gisuguma ko de. Sentir guma ko. 14 gel ñep gañ. Ah, ñep gañ kay. Est ce que do wër sa rap, bi nga sey mom? Non. Nah. rap rap, mo rap, rap, amoo. moo hmm. ko jëlee. d'accord kon euh, micro waykat yi ñaari nit ñoo ko yor muy waali ak yow wax jooju fan la jóge lan moo tax nga wax loolu. parce que li Waly def ba kite moom. Hmm. war naa yee waykat yi mais Waly du seen morom. moo hmm. def li ma def tamit li ma def barki démb waykat yi war nañoo maanaam xam ne micro waykat yi ñaar benn waare ko te beneen naa ko te def ay avocat lañ. ñu si des ñëpp ay avocat lañ.

atu jigéen ay jigéen hmm. góor yi ah. góor ñi ngay wax ah. jigéen ñi boole woo leen say affaire lan moo waral loolu samay xarit hmm. jigéen yëpp sama yaay lañ hmm. parce que ñoo mag naa xam yow la moo tax nga bëgg di choisir di way ay omo ay saaboog ay keccax ak mën naa xam lan moo waxal lool. Hmm? damaa xam ne ah, ni nga toogee nag doo ko defar. xam ne mënu maa wax loo daa neex way. Hmm. <laughs> d'accord léegi yow ngay way loolu ba pare nga jàpp ni micro bi yaa ko yor loolu fan nga ko teg. Sénégal yi te xale yi dàq way nekk fii. waaw tax xale yi xew yaa fi rek man damaa xew ma de. Hmm. soo xewee rek mën ngaa wax. d'accord. Euh, Seydi Diop nag lan nga ñuy wax ci moom. dara mu amul dara loo wax ci Seydi Diop. yéen ñaa ban relation ngeen am. amu leen benn relation defoo ak moom neen lan moo waxal loolu toog Pawlish. Hmm? mais est-ce que du tamit yow yaa bëgg dugg ci waal yi dugg ci moom bëgg a des ci moom kese kese kese xam nga mën nga am xarit mais du n'empêche ñeneen ñi aussi mën nga sekk ak ñoom jàmm di jàmm santeeg yooyu noonu. Pawlish yaa ngi nelaw de Pawlish. nelaw de. dama dama bu yaay bu si kanamee nga nelaw. tontu si li ma la laaj après ñu bàyyi la nga nelaw. ma ni actuellement yow euh, ñëpp xam nañ sa relation ak Wally dugg nga ci Wally seen complicité ñëpp xam nañ ko est-ce que lolu dina la empêcher nga am jamm ak yenen artistes di sekk ak ñom comme ni nga mel ak wali peut-être même mëno mel ak ñom ñom ñëpp lolu mais nga c'est ak ñom jamm ñi ci xam que ni nekkul ci Wally rek nga far mais yaa ngi aussi ci ñeneen yeneen artistes yi. Hein? <laughs> dégg nga. li may wax nga bëggul dégg du man nga ñàkk dégg de. Ah. li may wax nga bëggul dégg. foo fanaan fii nii mais yaa ngi nelaw damaa sonn damaa barki yàlla sonn masta li ma la laaj déggoo ko barki yàlla déggoo ma laajaat la ko hmm. mën la ndax ni nga mel ak Wally mënoo ko mel ak yeneen artistes yi moom dañu maa intéressé dañu may sonal rek wax ci bari daal fi nekkee rek. mais sekk nga ak ñoom jàmm quand yow ah, jàmm. léegi lan moo tax comme ni nga mel ak waa maa ñoo bokk ñu bokk ñu ay yoon bokk ñu man soo ma newaay rek ma dama lay bëgg. Hmm. kon da nga jàpp ni ñoom bëgguñu la. déedéet ñoom ñoo bëgg ma ñu mag ñàkk wàññi ma dara hmm. parce que maa ngi sama yoon. Hmm. te artiste bu ñu génnoon ñu waykat yi mag yi bu ñu génnoon. ma génn Paul lañu woo moo def loolu. d' accord d' accord kon Pawlish ñu ngi lay jaajëfal bu baax di suma oui kii mi ngi ne ah, <laughs> euh, Pawlish dernière question bi ma lay laaj mooy est ce que yow foogoon ni soo génnoon tey jii Sidi Diop génn ñu nit si duñ topp Sidi Diop bàyyi la. lii dama wax dama doon invité Sidi Ah, parce que artistes yëpp la ñuy invité ni ñuy ni ñu leen invité la ñuy invité Sidi Diop. saraxu ah <laughs> sa micro doo ko jël teel wax kenn dégg ko waxaat ko. ma saraxu ma da ngaa jàpp nañ la saraxu. ah waaw loolu fan lañ ko def. Oh, ci xew. Hmm? xew da xew. fii du doo dong yaa xew de ñu fi xew ñi la gën a xew ñoo fi nekk. waaw loolu hmm? ah, ah. ni fii ñu la gën a xew ñoo fi nekk tey soo génnoon di Diop génn nit ci daw topp Sidi Diop bàyyi la. dinañ nañ génn xool xam ma ak moom. Hmm. d'accord kon euh, gars yi ñu leen di jaajëfal bu baax di leen remercier euh, loolu moo nekkoon laaj yi ñu bëggoon laaj Pawlish Mbaye tey gis nañ ko ni dafa sonn trop nee na bëgguñu woon gànt moo waxal tey ji mu. ñu ñëw def émission bi ak moom ñu ngi leen di jaajëfal bu baax c'était Fatou Thiam sur Sénégal rek merci beaucoup Pawlish lan mooy sa dernier mot. Euh, mhm. comment. nelaw. nelaw mooy sa dernier mot. Mhm. amoo benn message bay lancé. je suis D'accord, est ce que vous ñu français yu français mm, non mais arrête de faire genre toi aussi. <laughs> D'accord, merci beaucoup merci bonne soirée.